vous pensez toujours pas d'élection sans Karim merci Maïmouna je pense que loolu waxaat ko fii amul sens parce que sur toute l'étendue du territoire national suñuy section au parti ak fédération parti dañu dajee exiger ko demande ko te loolu moo tax suñu groupe parlementaire parti bi instruire ko pour mu engager la lutte usant de tous les voies et moyens légaux que nous confèrent la charte et les textes de notre pays. donc ça c'est c'est c'est de l'évidence position boobu nag dafa am lu ko andi c'est vrai que tey euh, on doit se poser une question lan moo tax ñuy daw est la démocratie ou est-ce les élections élection dafa nekk pàcc bu solo ci démocratie te bu ñu élection du sëgg bëree rek élection li ko ngënk dafa bari il faut que règle yi jaar yoon il faut que ñu ko séq teg ko ci yoon ñu mujjee jouru dem scrutin li ma déggagum fii dafay teg ñaari logique logique électoraliste ak logique démocratique ñu ànd noog ma kisal dañ ko opposé ak moom 12 ans avec des options claires nettes je rappelle que 2019 dañu génne injustement ci processus bi par l'usage de la loi ñu dem taaluñu bënuñu pëna terewuñu kenn dox sa soxla ñu dem ci li nga xam ne démocratie moo ñu ko may parce que nag bu ñuy woote démocratie dañ koy doxee du wax ko rek mais dañ koy doxee lépp luy cours ci àdduna bi ñu dem fa sëgg bëre je pense cours CEDEAO dafa doxoon ay injonction état gouvernement du Sénégal respecté wu ko cour commission des droits de l'homme pareil tribunaux réew mi yëpp yu nekk bitim réew yëpp fi ñu dem ci problème mu Karim concerné PDS ñu am dëgg amul kenn ci kujjee Sénégal gi jéegi laa wax de ku d'accordul ci injustice bu PDS dugg di ko dund ak candidat wax nañ ko ci meeting wax nañ ko ci émission wax nañ ko fu nekk loolu moo am mu nekk une entorse à la démocratie ñu koy traîner tey ñu ñëw ci élection 2024 ñun ñu am candidat ni ñëpp nag suñu candidat remplir toutes les conditions toutes les conditions ñu génnee ko ci sur une supposée double nationalité au même moment où ñu gis ñoo xam ne ñu sax sénégalais war nekk candidat ci réew mi je pense que la le cas de Rose Wardini wane na ko la tax yoon ko am na lu tax te loolu kenn du ko wetti loolu bu rëccoon conseil constitutionnel lu muy indi ci réew mi électoraliste mooy on va aux élections parce que l'élection arrange certains ma mais ne règle pas les problèmes de démocratie. Le président de la République vient de parler ñun ànd je pense que le, le discours du président de la République mérite une réflexion plus approfondie. Aujourd'hui, on peut dire que Macky Sall dafa sol yére président de la République du Sénégal parce que PDS des mu def yoon réew mi moo assemblée nationale réew mi noo leen fal. jàpp nga ne a eu la bonne posture. parce qu'il y a un problème un précédent dangereux pour la République groupe parlementaire constitué de 27 députés élus par le suffrage universel des Sénégalais ñoo jël ñu leen yoon parce que dañu jàpp ne nous avons été lésés injustement extirpés de cette élection mënul ne injustice du ko gën ñu dem assemblée nationale mais du ñun rek a ko signé demander la mis en place d'une commission d'enquête c'est vrai PDS a ngi ci am na député APR yu ci bokk am na yeneen député yu bokkul APR bokkulu PDS signé ko waa kër Khalifa Sall d'accord ci ñoom Guy Marius Sagna ñun Sénégal ñorul leen pourtant les gens se retrouvent dans des cadres politique dans des coalitions politiques donc loolu moo tax may opposer logique électoraliste bi ak logique démocratique sama gaañ réew mi dafa feebar nañ leen xoolante dëgg ñu waxante dëgg. donc yow sa position mooy dañu war a tëggaat lépp. maa ngi ñëw may mun a daf ko laaj parce que li am musul am li am musul am Sénégal te ñun ñoo ko njëkkee parce que bi ñu demee conseil constitutionnel ñu génnee seen liste définitive avant ñun am nañu ñu ñu ci parrainage bi ak yeneen motif ñoo demandé gis président de la république waa PDS day toog tëdd nelaw jaaxaan euh, euh, bàyyi noonu sandax sandax saay non faut arrêter ñooñu jóg dem mu ji président de la mu dalal leen ñun dañuy jóg parce que am nañu ay député peut-être ñooñu dem amuñu député bu mën a constituer porter ce combat là mais ñun am nañu député yi am nañu légitimité politique bi ñu porter suñu combat jël yoon parce que fii ñu fi toog ñëpp ku nekk dafa am fa nga far la ngay def fa nga bokk ñoo koy déterminer ci nañu gisee situation bi nu mu présenté woo donc loolu la ñu def ba ñu ko defee ah mais président de la république da nga ci waroon yokk garant du bon fonctionnement des institutions c'est quoi le bon fonctionnement des institutions maa ngi ñëw non maa ngi ñëw euh, je je je dis Karim peut remettre mais c'est quoi le bon fonctionnement des des, des institutions réew am na problème PDS accusé na groupe parlementaire kaay leen leeral la wax wax kaay leen leeral warul am ci ki nga xam ne nii juge la moo war a nekk juge électoral le Sénégal du ñu waxante dëgg dañuy dañuy dilaguer problème yi cette crise là ñuy wax diisoo PDS nangam mag na ku caaxaan la PDS depuis 2014 ñu ngi ci xeex dañoo coo fekk dañu coo fekk amul lu ñu dénoncé ci système bi parrainage ni ñu njëkk a taxaw fii xeex ko def ci lu ci kenn deful am suñu député ñiy wax ci télé yi la ñuy wax mais ñun suñu député parce que dañu am parti politique di ko doxal suñu parti élection amul benn échéance bu ñu dem ci terrain bi wax ak sénégalais yi am ay représentants du peuple wax ko défendre ko assemblée nationale bañ ko voté dañ loolu nekk bëgg réew mi la mais ni ñu dégguñu on accepte la loi de la majorité amuñu woon beneen pexe ñu yóbbu ko ba pare ba CEDEAO affaire bi ñëwaat les gens non ne se sont jamais émus de cette situation là que vit le PDS que ni c'est extrêmement grave que des cours supranationales prennent des décisions et que les Sénégalais les Sénégalais ne les respectent pas mais musul nekk euh, fin de notre République pour revenir dire tout simplement que pour moi voilà une excellente et belle opportunité de réévaluer de réévaluer notre marche démocratique Sénégalais yi nañ bàyyi euh, logique personnelle bi ñu jiital réew mi parce que ku mënta falu te faluwoo ci règle parce que président de la République wax na solo ah il a peur non seulement d'un contentieux pré et post électoral kan moo ko mën a écarter fii loolu mooy débat bi débat bi tey le président de la République a constaté que effectivement il y a un blocage dans le fonctionnement normal des institutions ñu bari nga invoquer séparation des pouvoirs mais c'est faux débat dans toutes les démocraties du monde il y a des pouvoirs distincts séparés mais entre lesquels il y a des interconnexions le principe de la séparation des pouvoirs n'exclut pas la solidarité pour assurer un bon fonctionnement des institutions bu ñu toogee assemblée nationale am prérogative nekk le centre de l'universalité nekk ci procédure li ko yoon may dañ ko jox respect